dal leen ak jàmm ci leeral tv leeral point net tey jii ñu ngi daal di xëyee li nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna mile gannaaw rek daal yéenekaay yu bari gi ñu ko daal di xëyee ñu ne rek daal ki nga xamante ne mooy Guy Marius Sagna ñi ko daal di créé rek daal nguur gilee gannaaw rek daal ay jàppin yu bari ñuy daal di xëyee rek daal ci xëtam gu njëkk Guy Marius Sagna un monstre créé par le parti état maanaam rek daal li nga xamante ne moom mooy Guy Marius Sagna mile ñi ko daal di créé rek daal mooy nguur gilee gannaaw rek daal ab jàppin yu bari yi nga xamante ne rek daal ma nga ca woon au départ bu ñu sukkandikoo ci témoin ak le quotidien Guy Marius Sagna day nekkul woon dara simple njaay la woon rek daal ab bi nga xamante ne rek daal kenn sax daal daal di ko woon xoromal ndax itamit vélo sax mënu ko woon jëndal boppam da doon taaba taaba itamit nekkoon rek daal ki nga xamante ne daanaka même bu waxoon sax ñu bari itamit duñ ko daal di teewlu naka noona muy bokk rek daal ci yenn manifestation yi lée képp koo xamante ne amoon na xeex woo Guy Marius Sagna ci rek daal li nga xamante ne mouvement frappe France dégage gi waaye tamit ak ay sitting wala sax daal képp koo xamante ne dangaa grève daal ci politique naka noona ay interpellation yu daal di bari ñu koy daal di jàpp ak yóbbu at bu jot dana daal di dugg prison ci lu ëpp ñetti yoon naka noona ñuy daal di xamal li mu nekk rek daal ki nga xamante ne fu mu ne nii héros la maanaam nit ñi dañ koy daal di xoolee koo xamante ne daal daanaka mu ngi fépp képp koo xamante am nga naqar rek daal dem ci moom France frappe dégage gile mu daal di la taxaw ba tax na mu doon rek daal ab héros ci kanamu sénégalais yi lee mu décidé rek rejoindre parti bi di Pastef ba fu mu ne nii mu nekkoon rek daal ki nga xamante ne bu mooy tête de liste législative yi ñu jàll rek daal intercoalition bi di yeewu ak wàllu naka noona fu mu ne nii député assemblée nationale la gannaaw rek daal ñu daal di xam le ni mel Guy Marius Sagna nag daal dañ ko daal di defar de toutes pièces par l'état du Sénégal gannaaw rek daal gim koy daal di jàpp waaye tamit may ko notoriété gi mu daal di am na rek daal yéen kaay gi dikki daal di nafru ki nga incarné par le président Macky Sall mile moo ko daal di defar bu ñu sukkandikoo ci témoin mile ba tey ci xëtëb gu njëkk élection législative l'intercoalition Yewwi Wallu expose les chiffres de sa victoire kanoona gannaaw rek gi ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne rek daal di jot ci naka démb rek daal intercoalition bi di Wallu Yewwi dañoo daal di rek daal woo nga xamante ne moom mooy taskatu xibaar yi ñoom it di daal chiffre gi la ngir wax rek daal lu waa Benno Bokk Yaakaar wax amul dara li ci daal di am ndaxte itamit li ñu daal di wax gañe nañ ko dara gañe wuñ ko te itamit ñoom ñii ci seen bopp nee nañ au minimum am nañ ci lu tolluk ci 83 députés sur 165 naka noona ñoom nee nañ majorité bi dong ñoom ñii ñoo ko daal di am kon nag cohabitation gi ñu daal di wax ñoom kat daal gis nañ ñe mënta ñàkk ndaxte gi tamit dégg nañ Mimi Touré daal di wax ne li nga xamante ne rek daal moom mooy ñoom nag gañe nañ ci lu toll ci 30 députés ñoom nii amul dara dara du ci daal di am te itamit ay département Tiwaawoon Gundum ak Afrique du Nord ñoom nee nañ chiffre yooyu kat daal li mu daal di wax dara amu ca kon nag dañoo daal di téye kayitam góog a xotti ko sànni ga ngir rek xam ne daal li muy daal di wax dara amu ca naka noona ñu daal di jàkkaarloo daal ak taskatu xibaar yi gannaaw daal gi daal di xam le nguur gi la daal fitna rek daal moo ko tax a te itamit li nga xamante ne rek daal moom la daal di bëgg askan wi kat dana ko daal di wuy si ndax tey nañ opinion nationale internationale ngir rek wax leen ne nañu taxaw témm jëm rek bu fekkee nguur gi lee daa bëgg salfaaña li nga xamante ne moom mooy élection yi ñoom ñii duñ ko daal di seetaan ba tax na ñoom ci seen bopp loolu lañ daal di xamle Déthié itamit di daal di xamle indi ay chiffre ki nga xamante ne itamit moom mooy Khalifa moom itamit daal di àddu ci nimel ba rek daal daal dina nguur gi kat daal bu fekkee jàmm lay wut kon na xam leen ne jeex na ndax gañe gi nga xamante ne wax nañ ko amul dara li ci daal di am ndax déglu nañu résultat yi lée te itamit seeni chiffre wan na leen ni ñoom ñii ñoo am majorité ci lu toll ci 83 députés ba tax na li nga dina ko wax rek daal ñoom sànni nañ ko ci suuf te itamit wax nañ ne li nga xamante ne rek moom mooy assemblée nationale gi cohabitation mënta ñàkk ba tey rek daal ci xëtëb gu ci leeral point ñu daal fële de francs CFA naka noona fële rek daal ca Kébémer police rek moo daal di interpellé benn waay bi nga xamante daa yoroon rek daal ay ngalam yu bari daal mën nañ koo xaymaa ci lu toll ci 41 millions ci suñuy koppar or yi nga xamante ne daal moom nii Dakar rek daal la daal di woon jugee di dem fi nga xamante ne moom mooy Louga waaye tamit dafa daal di tombek rek daal ci check point police yi gannaaw daal giñ ko daal di fuyee ñu gis ne yor na ci lu toll ci 41 millions de valeur or yi nga xamante ne fekk nañ ko ci moom ba tax na rek daal ñi nga xamante ne ñoom ñooy police Kébémer gile teg na ko daal di loxo waaye tamit li ñu daal di wax rek daal mooy frauduleuse gi nga xamante ne rek daal ay gamme environ de 6700 gamme environ daal ñu daal di xam ne rek daal moom mi nga xamante ne mu ngi woy ci turu moom nag daal daa daal di quitté Dakar rek pour dem ba luga waaye tamit gannaaw gi mu daal di jëkkee ci checkpoint ga ñu dal di ko fuete rek daal ñu daal di gis ni ni mel waaye li ñu daal di xam xamle muy gannaaw moom itamit guddi lay daal di voyager amuñ dara loo xamante ne fekk nañ ko ci moom muy ay këyit yuy firndeel ne or yi muy daal di yóbbu rekk daal da moom moo ko moom wala sax keneen moo ko moom waaye li mu daal di xamle rek daal mooy ca Pikine la daal di dëkk waaye tamit moom mii li nga xamante ne moom mooy lëngoo door yi benn ko ko daal di yóbbante ba tax na nag daal ñi ne li nga xamante ne moom mooy di fay ko daal di wul respecté ba tax na l'enquête gaa ngi wéy ba rek daal jël nañ li nga xamante ne moom mooy lëng d'or yi jox ko ñi nga xamante ne moom yi ngir rek daal ñu poursuivre enquête gile ak yenn investigation yi nga xamante ne ñeel na ngalam yilee atay rek daal ci xëtëb gu njëkk ci leeral point net ju àddu rek daal fële ca Sicap Baobab li fa daal di xew rek daal ab français de cinquante cinq ans moom rek daal la ñu daal di gis ne mu daal di faatu rek daal ci immeuble am wetu immeuble Sadio Mané fële ca Sicap Baobab français googu nag daal am na cinquante cinq ans ba tax na rek daal ñuy daal di xam le ni ni mel moom mii kat daal altine di lañ ko daal di fekk ci appartement am rek daal bu nekk fële ca Sicap Baobab daal ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay dëkkandoom gisuñ ko ak i fan rek daal gi ñu daal di demee fekk ko fa waaye tamit daal ñu daal di woo police police bi mu daal di ñëwee gis rek daal li nga xamante ne moom mooy néew ba ñu daal di ko pendre maanaam rek daal ñu daal di yeewu li nga xamante ne moom mooy baat ba rek daal daal di ko takk mu mel ni ku pendre rek daal vite fait ñu daal di woo rek li nga xamante ne moom moom mooy jox information gile mardi ji waaye tamit ñu daal di xamle moom nag daal mu ngi wuyoo ci turu Tony moom nag ay dëkkandoom rek daal dañoo wax ne moom mii kat daal kenn xamewu ko leneen lu bari ndaxte itamit il est très discret maanaam rek daal bariwul ay dugg-dugg ak génn-génn moom daal liggéey moo koy génnee guddi lay daal di ñëwaat kenn xamalu ko lu daal di bari ba tax na rek daal mu ngi dëkkoon ca koñ ba depuis 2019 waaye tamit daal dinañ jël li nga xamante ne rek daal moom mooy depuis ga yóbbu ko fële ca hôpital bu Dantec ngir rek daal amal l'autopsie gi waaye enquete rek daal ubbi nañ ko ngir rek xam lan moo waral ni ni mel ndax xaru la wala ab assassinat la